ومن تبعهم بإيمان وإسلام وإحسان إلى يوم الدين mbokki jullit yi mbokki taalibe yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ginnaaw bu ñu sant yàlla suñ borom subhaanahu wa taala julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ñu ngi am mbégte di ànd ak yéen jotaay bii ci njëlbeen ñuy nuyu mboolem kilifa yi fi teew ci jotaay bi yépp di ci jiital njabootu sunu maam ju baax joojee di sëriñ Mor Kuna Mbàkke bu ñu tegee nuyoo bi ci loxal sëriñ Cheikh Gede mu teg ko ci loxal njaboot bi ñépp jàpp nañ ne nuyoo bi jaar na fa war a jaar waaye itam di nuyu kuréel bi nga xam ne ci waajtaayu màggalu Tuubaa gi ñooy amal ay jotaay ci ay pénc yu wuute ngir waajale ko màggal mooy daayiratu Rawdul Rayaahiin te Cheikh Ahmad Badawi nekk ci bopp ñu koy nuyu di nuyu mboolem kilifa yi raw yi yëpp teew ci suñu kanam bu lim ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ci doyloo bi nga xam ne yaakaar nañ ko ci ñun ba sant la liggéey bi ñu ngi ñaan suñu borom mu dimbali ñu ba yaakaar du tas di sant it mboolem mbokk yi nekk ci jotaay bi yépp ñu santoon lu nag ne bu ñu ñëwee kàddu yi ñu ciy yëkkati na jëm ci tomb bii ñu tam ñu tànn ñoom tomb bi sëriñ aboo junj la ko léegi mooy at tadxiyatu fi sabilil xidma loola ci wolof ci tënk bu xel mën a jàpp mooy jox sa lépp yàlla ni muy feeñee ci li sëñ Tuubaa andi woon muy xidma jox sa lépp yàlla ni muy feeñee ci li sëñ Tuba woon muy xidma di xidma mooy soriwut ak baat boobu di ñaan suñ borom subhanahu wa taala mu defal ñu tawfiq ci ñaanu ga nga xam ne suñ borom dogaloon na yonent yàlla Moussa ñaanoon ko ñu nekk li ñaan boobu di rabbi shrah li wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli kon suñ borom subhanahu wa taala ñu ngi ñaan yal na nga ubbi suñu dënn ubbi suñu xol ba liggéey bi ñu sant le jàppandal ñu ko lépp lu nar a niru ak façon wala ak lënt ci biir wax ji yal na nga ko fecc yow yàlla ba ñu may waxal ñépp ñu dégg li may wax tomb bi nag mbokk yi ngir waxtaane ko mënees na koo jël ci ay anam yu wuute mën naa nekk ci anam bu gudd mën naa nekk ci anam bu digg doomu mën naa nekk ci anam bu ñu tënk yaakaar naa jotaay bi nag laajul ñu jël tomb bi ci anam bu gudd lool waaye itam laajul it ñu tënk ko tënk bu gàtt lool jotaay bi li mu laaj ci ni ma ko jorte mooy tomb bi ñu tënk ko ca anam bu diggu dóomu du gudd ba yuqatloo kenn waaye du gàtt ba kenn du ko mën a jariñoo di ñaan it mbokk yi lépp lu ci jub ñu xam na ci yàlla suñ borom subhanahu wa taala la bàyyi ko lépp lu ci nekkum juumte ñu xam ne doomi aadama moom la yàlla nattoo ak ñàkk a mat ak ajuwa ju gàtt tomb bi nii lañ ko bëgg a tërale ci njëlbeen danañ indi ab tënk bu gàtt ci ñaari baat yi li ñu tuddee tadxiya muy sacrifice wala jox sa bopp jox sa lépp yàlla ak li ñu tuddee xidma mooy liggéey booy sént ngërëmal yàlla muy ñaari baat yu xaw a jege danañ ca def ab leeral bu gàtt kemtulay li ñu ci waxtu yu may su weesu loolu danañ dugg ci tomb bi jéem a tënk suñ kemtulay kàttan ci li ñu am ci waxtu ngir leeral li ñu jàpp ne tomb bi mënu ko ñàkk wala ma ne su ko ci ñàkk a tudd su weesoo loolu tomb bi ñu doon waxtaane léeg lekk gudd gi muy gudd dana waral ñenn ñi dara di leen rëcc lay jotaay bi mooy jariñu kon liñ mën a jariñoo ci tomb bi loola it insha allahu taala danañ ko tënk kon daal ñetti tomb yi lañ bëgg a tënk suñu waxtaan la ca des nag sant lay doon ak joxe kàddu bi mbokk yi baatu taddixiya bi mbokk yi andi boroom xam-xam jàngale nañ ko ci ñaari anam anam ji mooy baat bi lan lay firi anam gi ci des xamle bi boroom xam-xam yi xamle ci maanaam yi loolu lay wund loole it am na lu ci borom xam-xam yi wax muy lii may waaj a wax taddixiya bu ñu ko waxee ci baat li muy firi mooy nit ku joxe lam yor muy bakkanam walla xam-xamam wala alalam mu joxe ko te amul lum ciy séentu ci saahir loo xam ne ni daf ko cay jële lool lenn ci borom xam-xam yi noonu la ñu joxee baatu tadhiya waaye maanaam baat bi noonu soriwut ak maanaam yi muy wundu ci dëggantaani baat bi te ñooy mooy lan mooy joxe sa bakkan joxe sa waxtu joxe sa alal joxe lépp lu seer ci yow waaye la nga cay jële mooy tuyaaba juy bàyyi ko fa yàlla kon ñaari baat yi boo xoolee ñaari maanaa yi muy maanaam baat bi ak maanaam mi baat bi wundu dëggantaan ñaari baat yi boo leen boolee maanaam mam lay jox rek mooy taddixiya daal ci tënk mooy ku jox léppam yàlla di ca séentu ak payam akub yoonam loolu mënees su ko tënk ci baatu padriya bu ñu ñëwee ci baatu xidma xidma ñi ko borom xam-xam yi jàngale su réewut ak taddixiya daanaka dañuy duggal ndax xidma bu ñu ko waxee mooy taxaw ci ay liggéey yoo xam ne dafay jëm ci aw nit waaye liggéey yooyu ngay taxaw mu jëm ci ñoom yàlla rek nga cay séentu mooy taxaw ci ay soxlay ay nit te séentuwoo ca luñ la cay pay boo xoolee suriwut ak maanaam mi ñu joxe woon ci taddax yi même maanaam mi ñu ci joxe ci wàllu istilaa surtout ci côté nit yi sufiyanke yi dañuy wax ne taddax ya mooy jépp jëf bépp activité boo xam ne nit taxaw na ko mu jëm ci aw nit te la tax mu di ko taxawee mooy sàkku tuyaaba du koy du koy xaar kon mbokk yi gis nañ ñaari leeral yépp ci maanaam baat yi ak ci maanaam mi ma wundu dëggantaan ñoom ñépp dañuy duggante moo tax ñu ne ci ni ñuy duggante ñoom baat bi mënees naa wax ne kon kenn mënta xidma te taddax yëwut waaye kenn mënta taddi xëy te la muy def kenn du ko tudde xidma maanaam kul képp kuy sacrifier ak dundam alalam xam-xamam léppam ngir yàlla loolee muy def lam koy jural mooy payu yàlla te loolu mooy xidma waaye képp kuy lëggéeyal aw nit it di ca sekk la ngay def ba tax mu tudd xidma loolu taddi moo tax ñu ne képp koy xidma mënoo ñàkk a mënoo xidma te taddi yowoo muy mënoo xidma te joxoo sa mën a ci ak pay fa yàlla waaye itam mënoo taddi ya te li ngay taddi du tudd xidma kon ñaari baat yi dañoo bokk duggante loolu ay leeral la yoo xam ne mënutoon a ñàkk ñu tudd ko ci baat léegi nag bu ñu duggee ci dëggi dëggi waxtaan xam nañu ne jëmmi lu ñu tuddee tadxiya mooy sacrifice joxe ni ma ko leerale ci maanaam sëñ Tuubaa wooteem bii ak li muy xëcc ci mbooloo mi jëme ak fam leen di jaarale daf ko tabax ci kaw tadxiya bu maanaam da koo taxaw tabax ci kaw xidma te mooy liggéey boo xam ne yaa ngi koy séentu pay am kon jàngaleem sëriñ bi aku booteem da ko tabax ci kaw liggéey bu nit di liggéey bi ca séntu pay gu yàlla te loola yaakaar naa jàngale ko dana yomb fu ne waaye ëtt yii nga xam ne ak njabootam ñoo fi nekk jàngale ko fi dana yomb bi ci njëkk mooy jëlal ak dundam moom dundam jëpp ci sabilul xidma taddaxiya sëñ bi dundam jëpp ci wàllu xidma tadxiya mënees na wax ne bi mu déclaré bi mu feeñalee daawaan bi amatut naflaay amatut bànneex dem nga géej dem nga gànnaar dem nga céyeen ñëw gi njëreem ba nit ñibbisee Tuubaa lépp tadxiya te la ko tax a jóg lépp mooy lan mooy jariñ nit ñi ak dox seen digganteeg lu leen di xaj ngërëmal yàlla looloo tax lam yor lépp mu joxe looloo taxoon mu waxoon ca bayit wele nabbahtukum maan ala kaddin bada lii qabla an ara ridal mu abada maa ngi leen di yee yéen mbooleem ñi aju ci man ak képp koo xam ne dana dégg ak kadd buy bàyyi ko ci man maa ngi leen di yéene nekk nit ki bala mu mën a am ngërmal yàlla faw mu daj ay coono faw mu daj ay naqar faw mu daj ay fitna balaa ngërëmal yàlla ñëw kon nga dégg ci ne sëriñ bi moom ci njëlbeenam rek da ngay daal di xam ne ngir mu teg nit ñi ci yoonu siraatu mustaqim dafa sacrifier ak dundam jox boppam yàlla li mu daj ci nasaraan yi li mu daj ci tubaab li mu daj ci ay xatal yoo xam ne borom xam-xam bind nañ ko seen téere waxtaan kat yi waxtaan ko ci seeni jotaay fitna yooyu yëpp la ko tax a jóg rek mooy xidma tënk nañ ko ci ñaari bayit yoo xam ne ñii ñi ngi koy askan sëñ bi ñii ñi ngi koy askan sëñ Moussa ngir ñëw bi ñëw ci jasaw shakoor mooy wax gi wax ne sababu gaybatiya an allaha araada an anaala minhu jaaha wa an akuna shaakian li qawmi wa an akuna xaadiman fi dawli kon xaadiman boobu nga dégg ci kon ci cadre xidma bi moo tax coono yi mu doon daj yëpp jànkonte ak lañ ca jànkonteel lépp liggéeyal aw xeetam dox seen digganteeg lu leen di xañ ngërëmal yàlla ak lu leen di yóbbu ca safar kon dul leen jéppalul la ba ni mu delloo ci borom bi subhanahu wa nun nga xam ne ak dundam yëpp dafa fees ak coono yi moo niki noonu it ña njëkkoon a ànd ak moom ci ñoo xam ne ñooy ay taaliben ñëpp njëkk a topp ci yoon wu képp la leen tàggatoon mooy gëm ne da war a jox sa bopp lépp yàlla féete ak sa borom daf leen tàggat ci mën haj boobu ngir ñu bëgg yàlla dëgmal yàlla fopp lépp luy jëm ci yàlla teg ko ci kaw lépp loo xam ne yëfi àdduna la te képp ku dëgmal yàlla danga nga mën a joxe sa lépp muñ te yàlla tax kon daf leen a tàggat ndax ak tarbiya rek li muy jur li li muy wund mooy nit ki day nocc ko ci bakkanam ak bànneexam ak alalam ak li mu am lépp ak darajaam ngir yàlla rek a tax kon boo xoolee ci mën manhaj bi mu leen tegoon ak tarbiya bi mu leen doon jox lépp daf leen doon tarbiya ci taddixiya mooy lan nga gën ne comme da nga bëgg ngërëmal yàlla comme da nga bëgg egg ci yàlla comme da nga mujj bëgg a mucc ci ñeenti noon yi gàllankoor nit ba du egg ci yàlla di seytaane bànneex ak bakkan ak dunya faw nga nangoo joxe li nga am te yàlla tax moo tax mag ña àndoon ak ñoom daf leen a tàggatoon ci nuru ba sëñ bay jaxate ma ngi koy junj sëriñ bile ak mbooleem ñi njëkkoon a ngëb ci moom asal du ñu maasum kenn ñu gën ku nekk ñoom ndax lan sëñ bi daf leen a tàggatoon ci taddixiyamu joxe seen lépp te yàlla tax ndax ci cadre liggéey boobu dañ te tekkoon liggéey boo xam ne ngir nga liggéeye ko munta ñàkk nga joxe li nga am lépp ndax sëñ bi ci xam nga ne ci cadre ci njëlbeenu defar lim fi fekkoon ci ay jafe-jafe su sa su su jirutoon yoonu taddaxiya ngir liggéeyal xeet bi bu tëggutoon mbooloo mi ci taddaxiya ngir ñu nangoo joxe seen lépp te yàlla tax su boobaa li mu bëggoon a réaliser ak li mu bëggoon a xeexal ci jamonoom jafe-jafe dana ci am moo tax moom sëriñ bi circonstance yi mu ñëwoon xam nañu ne ñam lan fi fekkoon bu sacrifice amutoon jële ko fi du yomb ndax société ba mu fi fekkoon lañ doon dund ci jamonoom sacrifice man taddix yi dëgg moo ko fi jële loola sëñ Moussa Ka wan wane na ko ci ab melokaan wu gàtt woo xam ne ci ay wolofal la ngir nga xam fan la gis sëñ bi fekkoon société bi fan la fekkoon mbooloon mi ak lam bëggoon ci ñoom ak génne leen ci nga xam ne liggéey la boo xam ne nii moom at ñi mu tàggat di leen digal ñuy def di leen tere ñuy bàyyi xam leen di jaar lu ñu fay jaar ci taxawaay boobu ak formation bu ci la taxaw ba lim bëggoon a dindi mu dindi ko lim bëggoon a saxal mu saxal fan la sëñ bi fekkoon xeet bi mooy la sëñ Moussa ko doon wax ci warafal ba ne doon kan ak dem gi walaf nasaraanu te kon billaahi ñëpp dem niiraalu ngir booba doomi soxna yaa ngi kaanu di daggu seef yeeg wóor yi faf yi yii doomi soxna dal di sampi daara te donga ñag jigéen ña mel ne saara mu topp ko di wébale siri mu ànd ak saara yendu caawo ndaw jaxasoo bamba rafet ak caawo góor ak jigéen ña jaxasoo di caaxaan lamb ya gor sabar yëpp jaaxaan kenn xamatul xasdu li wajhillaahi kaa nga ki fóore faf di jaanillaahi l'islam di jooy yëkkat ba génn gàddaay ci sowu jant képp ku mel ne làmbaay Cheikh Bamba dal di ñaan ci barkeb jiili ni yàlla maay shafiu kulli jiili maay xaadimu rasuli fi suudaani maaram mu xarnu bi ali kon ci circonstance yii ci la sëñ Tuubaa fekkoon société bi war a def xaddaxiya nag war ko fay jël moo tax mu formé kuréel bu dëgër kuréel bu bëgg yàlla kuréel bu sopp yàlla kuréel bu ragal yàlla kuréel boo xam ne boo ne leen jàkk seen lépp yàlla la wan ginnaaw adduna koy ci jàkk ku ne ci jàkk nga ne ndax alhaybatul ilahiyatu allati tatallahu ala fawqa jabinihim maanaam raglu yàlla gii leer leen ci seen seen jëyi boo leen jàkk am foo nekk boo leen jàkk am foo nekk loolu loolu lañ tuddee tartiib kon mu formé leen ngir taxawal liggéey bii nga xam ne moom la sëriñ bi taxawal sacrifice bu taxoon na ñoom ñu daan gàddaay bàyyi seeni dëkk bàyyi seeni réew bàyyi seeni gox fekk si sëñ bi ci ab wooteem fekk si sëñ bi ak wooteem ngir lan ngir lim bëgg a jëmmal ba koo taxawal mu sotti ngir roy ko ca lam waxoon ca lam bëggoon a jëmmal ak fitna yañ ko doon teg tam tudd ko ca bayit wa ku sóori xalat wal ahlu anni tafarraqat li matxi lladi anhu lmadihu qasiru kon wan ginnaaw gi wan ginnaaw adduna wan ginnaaw gi mu wan ginnaaw ak ak njabootam wan ginnaaw gi wan ginnaaw maanaam waa këram loolu lépp li ko indi mooy lan bëgg a lëggéeyal sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam ci sunnaam ak teg nit ñi ci yoonu siraat mustaqim loola ca la tàggat mbooloo a ñu wuy si ko ànd ak moom ca loolu bi mu leen wooyee bañ wuy si ko ba noppi nag ci wàllu xidma nangoo sacrifier seenu dund man nga bay lépp man nga bay adduna ak la ko wundu lépp ànd ak moom daf leen a joxañ yoon wi ñu war a jaar moo tax nit ki buy tàdde xiya di joxe la muy war a joxe na ko joxe fu ko mat a joxe maanaam taddixiya bu ñu koy wax dëgg-dëgg lu ñu war a séentu tuyaaba fa yàlla kon lépp lu nit kiy def te tuyaaba nekku fi fa yàlla loola bu koy tuddee taddixiya nekkul taddixiya mais joxe bakkanam ci lu ko jërul la joxe alalam ci lu ko jërul la joxe dundam ci lu ko jërul la lii mat a joxe dund mooy loo xam ne ak tuyaaba ma nga fa yàlla moo tax fawu nit ki xam majaalatul xidma wa taddixiya bu ñuy wax xidma dëgg-dëgg bu ñuy wax taddixiya dëgg fan la war a kenn ku ci ne ngir dindi ci yow bànneexu ba dafa laa sant ab liggéey boo xam ne liggéey boobu toujours maa ngi wax ne yàlla nga cay séntu ñii mu leen di liggéeyloo ci alquran bi ñii mu leen di liggéeyloo ci xasida ak la mu taalif ñii mu leen di liggéeyloo liggéey boo xam ne nii moo ca gën a fës mooy it liggéeyu zahir bi gën caa néew lool ndax lépp lu leen di jox ci ab liggéey ci cadre tadxiya lay dugg moo tax liggéey bi ngërëmal yàlla da ciy nekk moo tax muy wax ne nit ki bala moo taxaw ci tàggat ay nit fexe ba ñu sacrifier seen dund mu jëm ci ngërëmal yàlla dafa war a xam moom fi muy jaarale ñi muy ñi muy tàggat moo tax taddixiya dëgg-dëgg ba baat yi buñ ko jaxasee maanaam buñ dugal baat fu mu dugg fu mu duggul buñ jox am maanaa ku ko moomul boo dugalee baat fu mu duggul lam doon jariñ du ko jariñ boo dugalee maanaa boo joxee maanaa ku ko moomul da nga jox mbir ku ko moomul moo tax Sëñ Tuubaa lépp la leeral nit ki ki lay woo jëmale ci yàlla kooku nga war a àndal ndax ñooñu la tàggatoon ndax ñoom ki mu àndaloo mooy suñ tubaa dafa leen doon woo ci yàlla ñuy joxe seenu dund joxe seen lépp ci wàllu xidma moo taxoon ñoom dañoo bàyyi woon adduna wan ko ginnaaw ba ba naaru gànnaar bam leen di melal na ngi leen di melal ci melakaan waxam boo leen di séenee ak wat bàyyi ginnaaw gin wan ginnaaw gin wa wan ginnaaw adduna da ngay jàpp ne ay yinn lañ yoo xam ne dañoo sol mbubbi nit raaytu qawman min waran nibrasi wal qawmu jinnun fii libaasin naasi loolu naaru gànnaar ba mu koy melal te du wan ginaaw gi nga waroon dëddu woon adduna sëñ Tuubaa loolu nokkute la boo xam ne dañ ci war a taxaw wàllu dëddu adduna gi dëddu adduna googu mbokk yi ci cadre xidma ci cadre taddaxiya lu mat a bàyyi xel ndax sëñ li mu doon woote jëme lépp ci yàlla la yàlla la doon woo mbooloo mi jëme leen woo woowu la leen jëme leen ci adduna ndax adduna da koo dëgmal si boo demee ci mën a rusuloo nee na adduna dama dëgmal si ma wan ko ginnaaw mu wan ma ginnaaw faaliwuma ko mu dëgmal siwaat ma fekk mal naa yàlla kuy woote woo sëriñ bi ne foofu nga war a nekk adduna dama dëgmal si ma wan ko ginnaaw mu wan ma ginnaaw faaliwuma ko mu dëgmal si ma fekk dëgmal dëgmal naa yàlla kon jikko yooyu moom la sëñ bi doon tàggat ca mag ña bañ nangoo joxe lii ñu yor lépp te yàlla tax jotaay bi du ñu may ñu joxe ci ay misaal yu baree bari waaye misaal man man ngaa joxe misaal ci yi may waaj bi ci njëkk mooy moom sëriñ bi ci boppam ñi mu doon tàgg ñi mu doon tàggat man na sëriñ yi jox ay misaal yu bare bare waaye la ci jiitu mooy la mooy mag ñi euh, mënees na wax ne ñoom lañ doon du lañ doon bay lañ doon liggéeye lépp dañ ko doon joxe ci yoonu yàlla te yàlla tax nga xam ne li nga am lépp da nga ko doon joxe yow di bay di jox daw maanaam li ngay bay doo ko dunde da maanaam da nga koy joxe te yàlla tax loola sa ki nangoo xidma ndax xam nga fi Sëñ Tuubaa jëm ak mbooloo mi nga bëgg daaw bi yëkkati ko loolu boo ko boo ci boo ko toppee ba ci alxaybatul bahriya bi sëñ bi ci géej gi sëñ daam yor njàngum alquran bi maam Cerno Birahim yor njàngum njàngum njàngum xam-xam bi am na ay mag yoo xam ne dañoo tàddxiye seenu dund ngir liñ soxla ñoom ñu koy taxaw noonu nga koy toppee ba ci am na ci mag ñoo xam ne taarix saxal nañu daanañ jënd ay gileem di ko sëf di fekk ñuy fekk sëñ bi gànnaar di leen di di di ko ko joxe ji yii buñ demee buñ eggee yii toppat loola ci cadre taddaxee ci leen dugg même sax tabaxaay ma projet taxaw tabax jumaay Tuubaa jii nga xam ne abraay mënu foon a ñàkk mag ñi dañoo tadd taddaxee yoon seenu dund ngir takk raay bi diggante njariñ fam jóge ba ba egg si Tuubaa xaw li sëñ Tuubaa bëgg taxaw jumaa day sotti loola sacrifice seen dund moo ko noonu koy toppee ba ci mag wax nañu ne xeer yeeg suuf yëpp ñoo ko daan roñ di andi te amul ñu ci doon séentu ti wàllu adduna ngërëmal yàlla lañ ci doon sàkk loolu lépp ci cadre taddex ya kon mag ñi jox nañ seen lépp te yàlla tax moo tax jikko yuy mbokk yi ci ta ci tàggatu sëñ bi ak yarub sëñ bi mooy wéy di wéy di wéy ci ñim yar tàggat leen ba ci ñi ko fi wutu yëpp ci ay xulafa xalifa bu ci taxaw yëkkati cadre xidma bi rek woon nit ñi ci taddex ya rek ñi fi jaar ñëpp tàmbale ko sëñ Modou Moustapha ci sëñ Fallou sëñ Abdou Lahad eh, sëñ Abdoul Qadir sëñ ba ci ñi fi jar ñëpp ba ci sëñ Mountakha mi ku fi jaar rek da nga woo nit ñi yëkkati cadre xidma bi woo nit ñi ci cadre tàddex ya mooy joxe lañ am tam jëm ci liggéey bi yàlla bi tam jëm ci nga liggéey bi yàlla baat ba baat bu ñor la ci biir waxtaan wi tam jëm ci liggéey bi yàlla bi ndax nit ki li muy joxe eh, lu loolu nag am na sew-sew boo xam ne sama benn maam bu ñu wax sëñ Abibu Rasul si waxoon na ci aw bayit woo xam ne ni ñun ñëpp war nañ koo dégg yàlla nañ ci yàlla sol ñun ñëpp sëñ Abibu Rasul wax na ci bayit wa ne ñu jox la addiya muy ab lim nga jënd ca ay band yu def njaga mbay coon sekk maa ñu jox la addiya muy ab lim nga jënd ca ay banduy def njaga mbay coon sekk maa waaw loolu sëñ Aliou Ressourci moo ko wax ñu jox la addiya muy ab lim nga jënd ca ay banduy def njaga mbay coon sekk maa waaw loolu sëñ mbay sëñ sëñ sëñ sëñ euh, Habibou Ressourci yàlla na ko yàlla yërëm wax na kon nag li nit kiy joxe muy bakkanam muy alalam muy darajaam muy xam-xam muy lépp na ko joxe fu ko jar luy maye ngërëmal yàlla loolu it sëñ bi def koo leeraw gis nga am na bayit boo xam ne ñun ñëpp dañ koy firi fu ñu toll naan sëñ Tuubaa nee na tuuba li abdin muridin saadiqin lahumu bi xidmatin aw bi xobbin aw hadiyaat loolu ñun ñëpp dañ koy wax fu ñu toll waaye nag bala ñoo wax tuuba li abdin muridin saadiqin lahumu warees naa wax la ko jiitu njëkke lahumu juuju ñan la lahumu juuju ñan la sëñ bi loolu dañ ko war a xam ba bu kuy def taddiya nga xam ba xam yow damay taddiya ndax ki ne damay bayal ma boo ma bayalee ma fay la day fekk nga bay te bay ca tool ba muy bayloo waaye boo bayul kuñ kenn du la fay boo bayee te bayoo fañ lay bayloo it dem mooy nekk ca mooy ngay bay bu fay jotee kenn du fay ndax bayoo fañ la bayloo kon bu ñuy wax lëxu moo juju lëxu moo juju mbokk yi dañoo war a xam mooy lan kon taddiya ci xidma nit ki dafa war a gëstu lépp lan leer ci boppam mu def kenn wutalam lëxu moo ji mooy ñan daf ko tudd daf ko tudd ci xoqa ma ngi koy wax ci biir xoqa bay di yaa ngi nii baaxoo fudulan bi dicrillahi xaaliqihim fan nawma fi leyli baaxoo bil munajat dañoo jaay ay caaxaan jënd ko tudd yàlla mi leen sàkk nelaw guddi dañ koo jaay jënd ko di yàlla seen borom ba bës set gan taj fol madajia fii leylin junubuhum naasina salma wa layla bil busharat waxtu guddi masaan jot ba ngay bànnee ko nelaw sa kaw lal ñoo ña ngay bànnee ko jaamu seen borom ba bës set ñaar kaanoo idal laylu arqas sitra da xalakin xaamoo sira an li ixya i dujun naati ñoom bu nda mas guddi gi masaan jot ba lëndëm gi sëndëm sëmbër tëru lëndëm këriis dañ leen bërit dëgmal yàlla seen borom di ko jaam ba ba sët al ilmu siimatuhum wal xilmu daydanuhum doona daawi wa inkaaril maqaamaati xam-xam mooy seen mandarga seen jikko mooy lewet bu ñu toog ci garam place di wax lu ñurut lu ñurut dañu xam yoonu yàlla tënk ci seen bopp te luñ ko wàcc bu guddee bëccëg la ñu nekk arkaanu bayti jamiil qawmi arbaatun biha yuassasu bunyaanul wilayaati sumtun wa juuun tawilun baadahu saharun wa uslatun an siyuqin bil ishaaraati noonu la ko toppee ba ne dañuy ànd te yàlla tax di waxante dëgg seen biir te yàlla tax di labirinte seen biir te yàlla tax wa rufqatun wa hiya ixwanun lahum himamun ma'al wafa'i bi sidqin fil uxuwaati dañu doon ñoo xam ne dañuy ragal yàlla ci kaw ragal yàlla ci biir ragal yàlla ci zahir ragal yàlla ci batin id fil bidayati xawfu dambi yasjuruhum wa fil nihayati ijlalul jalalaati ñooñu la wax ba eggal daan ne nag tuuba li abdin muridin sadiqin lahu moo lahu moo ñooñu kon kuy def tadxiya kuy def xidma ci nga koy def xool ko la lu ma ta bàyyi xel buñ bëggee nag pour tënk wax ji ngir liñ sënkoon ci waxtu mooy xaw a jate jëm bi xidma boobu mbokk yi dafa fees dell ci njàngam sëñ bi du ma du mën a jàll ci ba ci xalifa bii ñu toll ci jamono mooy sëriñ Muntaxa yàlla ko fi yàlla yàggal te wéral bi mu ñëw it woo nit ñi ci tàddaxiya woo na nit ñi ci xidma boo xoolee seen bu bu rëy bii di mu complexe bii nga xam ne bu raar la ci jamono muy liggéey yoo xam ne nii dañ fiy jàngal nit ki ah, diineem jàngal ko fi alxuraan jàngal ko fi diineem jàngal ko fi àdduna bu génnee nit nekk nit ku mat sëkk jàng ba ne ar yaru ba ne nër yeewu ba ne jar loolu la ñuy jëlee ci complexe bi te loolu mooy njàngaleem sëriñ bi kon ci xidma bu moom ba mu ñëwee dane liggéey li muy liggéey moom sëriñ bi mooy ni nga ko jëmee ci xam-xam yàlla ko yàlla dëgëral te loolu day jëmmal rek la sëñ bi waxoon ci bayit wane bil mustafa libanal quddus madrasatan biha yazulul ada wal jahlu wal kabadu wàllu xidma boobu mbokk yi yitteel gi mu yitteel sëñ tubaat egg na ci wax ne tàggat gi mu ci tàggat ak njabootam egg na ci wax ne xidma moo gën a gaaw ci yóbbu nit àjjana moo tax nit ki loo mën a am sa xam-xam sa alal sa daraja sa juddu jaayam lépp ngir def ko ci cadre xidma ndax daf lay yóbbu àjjana loolu moom lay wax ci biir masalikul jinaan ci faslu alsadaqati wan nafaq wal infaq ma ngay wax ci biir ne wa qiila in xadara yowmul baari wa duriba siraatu fawqa annaari takaabadal waral jawaawal humma naada munaadin ayna ahlul xidma lil muslimina fa ajaabu ajmain fa yumaruuna lil jinaani musriin bi an yuqaala lahum dol janna bi gayri mihnatin wa gayri fitna nee na bu ëllëgee yowmal qiyaama bu bis penc baa ba ñu fab siraat gàll ko ci kaw jahannama sëñ tubaay wax de ba nit ñi di jànkoonteek njàqare di jànkoonteeku tiis day am ku jóg ci mbooloo mi daal di woote lu muy wax ana ñi doon liggéeyal jullit ñi ana ñi doon liggéeyal jullit ñi ana ñi doon liggéeyal jullit ñi ñoom ñëpp ñu daal di tontu ñu ne leen yéen dem leen àjjana ci bu gaaw ñu wax leen leen wéy leen àjjana du ngeen gis benn natt du ngeen gis benn fitna sëñ Tuubaa bind ci Masaalikul Jinaan kon looloo tax joxe sa bopp ci yoonu yàlla joxe sa bakkan joxe sa lépp ci yoonu yàlla dafa yàgg am ci njàngaleem sëriñ bay di loolu nag lay waree moo tax sax euh, nit ñi xalaate ci yoonu murit ku ca xalaat xalaateen wu wér nit ñi xalaate yoonu murit ci xalaate xalaateen wu wér lii nekk ci moom mooy lan gënal keneen jariñu doonte dangay ngay am murit piir buy dund njàngaleem sëriñ tubaa jariñ ñeneen moom lay gënal ci jariñ bopp ndax loolu la suñ Tuubaa tàggat am murit piir buy dund iraada dëggantaan al iradatul qawi al iradatu al qawi al iradatul ilahiyatul qawiya ki koy dund dëgg jariñ ab mbokkum jullitam moo koy gënal jariñ boppam te bépp société boo xam ne jariñ ñeneen moo lay gënal jariñ sa bopp société buy am stabilité lay doon day amuk dal day amuk maanaam nit ñi dañuy wóolante ndax kenn ku ne boppam lay gis ci boppam maanaam moroomam lay bopp maanaam moroomam lay gis ci boppam société boo xam ne ne al isaar la ñuy dund kenn ku ne mbo moroomam jëriñu mu mel ne société bi ba sëñ Tuubaa Sayyidina Muhammad yaroon te so keroog xam nañu ne ci raswatu Yarmouk mooy maarakatul Yarmouk bu metti boobee am na ci ñett ci saxaaba yi ñoo xam ne dañ leen a gaañ kenn ki biñ ko gaañee moroomam ñëw bëgg a yëkkati am ndox jox ko ko bi bim bi mu demee ba di ko waaj a jëfandikoo daa dégg ci peggam moroomam mu yuuxu mun a jox leen ko kooku la gënal mu dund dont day dee. ñu dem ci ku ñaareel yi di ko waaj a jox ndox moom mu waaj mu koy waaj a jëfandikoo déggat moroomam muy yuuxu mun a jox leen ko ñu dem ca ka mu jigga fekk mu faatu di dabu ko ñaareel ki fekk mu faatu di daw ku ci njëkk ku njëkk ka fekk mu faatu ñoom ñépp a faatu ndax kenn ku ne moroomam la gën a yéene ak dund ci boppam moo tax Seydina Muhammad ci njàngal ci njàngaleem jàngale nañu ne saa bu njariñ taxawee doonte keneen moo koy jariñoo jox ko mu jariñoo ko te nga doyloo yàlla yow jox ko mu jariñoo ko te yàlla loolu feeñ ci njàngaleem Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xam ngeen ne bu wér yonent baa ngi wax ne bu bis penc bi taxawoon mu am kenn ci yéen koo xam ne daa yor gàncaxu tàndarama gu mu war a gu mu war a jëmbat doonte bis penc ba day day ma adduna li day tukki bu bis penc ba tukki mukk te jëmbatu ko te xam nga ne moom bu koy jëmbat du fekkee njariñam loola mooy wane nit sacrifice ak dundam dool te ñeneen day jariñu ñi mu tàggatoon it loola ca la leen tàggatoon ba loolu lañ doon dund kenn ngi ni ci njabootam muy kesta bu ñuy nekk li bu xam ay wax bari na waaye li ñu jële ci mujaahid ak ataat wax nañu ne ñu jële ko ibnu abbas imaamu ali la imaamu ali wax nañu ne dafa amoon dara ci aw ñam def ko ñetti xaaj benn xaaj bi mu mu liggéey ko bi mu ko liggéeyee moom benn xaaj bi ba war koo jariñoo euh, am benn miskin bu egsi mu génne xaaj boobee defar na ko ba war koo jëriñoo daal di ko koy jox bi mu ko joxee xobaat beneen xaaj ba liggéey bi mu ko liggéey ba war koo jëriñoo euh, muy xaaj ñaareel bi astafurlah xaaj xaaj bu njëkk bi bi mu ko liggéeyee ba war koo jëfandikoo waaw ab miskin daa egg si mu jox ko mu liggéeyaat xaajub ñaareel ba ba mu liggéey xaaj ñaar ba war koo jëriñoo euh, ab mu yëkkati ko jox ko mu des benn xaaju ñetteel bi mu liggéey xaajub ñetteel bi ba war koo jëriñoo ku ñu jàpp ex laaj ko ko mu jox ko ko moom la aaya bi di wax ne wa yutimuuna taama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira kon yonent bi alayhi salaam ñu doon tàggat daf leen doon tàggat ci gënal seen mbokkam jullit jariñu doon bi lañu noonu ñi ngi jéggul mbokk yi daf tënk jeexal kon fi ñuy jeexale jotaay bi ndax juróom-ñaari mi simil lañu wax na moo ñu des kon li wax ji gudd gudd gudd gudd mënees na koo tënk ci tomb yi may waaj wax koo xam ne wax ji dafa gudd ci yow man nga jële lii ci waxtaan bi ci njëkk mooy ndekete yow xidma kenn mënu koo def te taddex yow maanaam kenn mënta yar baatub maanaam liggéey ci ni ko sëñ Tuubaa indee te foofu joxoo sa lépp yàlla di ke séentu ak payam ëllëg loolu lañ ko jëlee ci waxtaan bi kon nit ki munta liggéey ci cadre xidma xidma dëggantaan te deful taddee ndax la muy def lépp ngërëmal yàlla la ci sàkku seen fu ci ngërëm ngërëmul nit kooku mooy benn ñaareel ba liñ jëlee ci waxtaan bi mooy yoonu murit wala wooteb sëriñ bi da koo tabax ci ka ci ci asaasu xidma maanaam yoonu murit kenn munta doonu murit te du xidma ndax xidma mooy mooy mooy wane ak murit boo xoolee suñu siñ Tuubaa tàggat yëpp ñu ay taalibe dëggantaan jariñ ay nit rek lañuy nekk ci ko gox bu ñu ne fu ñu nekk te yaatu fa rek nit ña nit ña yaatu fa ndax la ñu ëmb lépp jariñ la ndax lam ko waxoon rek wallahu yansuru nii wal xalqu tatbau nii fil barri wal bahri daa nafin bila darari moo tax ñu mu tàggat te ñu wéyal am njàngal foofu la ñu ne ñaar ñetteel ba mooy Sëriñ Tuubaa ak mbooleem ñi ko toppoon ñëpp xadiman wa xadisan moo xam ñu jiitu woon moo xam ñu ci tegu ñoom ñëpp ay liggéeykatul islam lañ ay liggéeytu liggéeykatu jullit lañ ci ku leen déggal te jaar ci seen mën foofa ngay nekk moo tax suñu gisee nit koo xam ne dafay woote ci yoonu sëriñ te la muy woote lépp buñ ko càmbaree mu génn lépp doon yëfi addunay kese kon day woote woo sëriñ bi waaye dund ko te mbiri nag ku ko woote woo ku ne da nga ko war a dund ñett ñeenteel ba mooy ndekete yoo ci cadre xidma julli bi ci lay fàggoo yiw adduna ak àllaaxira mu mën caa demee àjjana ci bu gaaw a gaaw a gaaw loolu it xidma da ko indi ba ca mujj na mbokk yi mooy lan xidma ci ab société xidma ci am réew dafay waral hudo dafa waral istiqraar stabilité bi ñu soxla ci ab société xidma da ko indi ndax mooy lan ña cay dund ñëpp kenn du ca ci njariñul boppam njariñul keneen lay xool keneen day jariñu donte moom day lool te ay nit bu ñu séqee dara kenn ku ne gën koo yéene morom ja suñ borom dana def ñu xéwloo ko ñoom ñëpp waaye aw nit bu ñu séqee dara te kenn ku ne boppam dong la ko yéenu yàlla mën na leen koo xañ ñoom ñëpp benn kese la ciy nettali tëje ko jotaay dafa am ñaar ñu doon dox pour wan la pour wan la misaal mu gën a tembe rek pour nga xam ne ay nit bu ñu séqee dara dañ koy yéeneenti daa am ñett ñu doon dox daal for genn benn sa benn caakos xaalis caakos xaalis si ñu sol nag ji kañ kañ for ko kenn yéenewu ko morom kenn ku ne boppam la ko yéen ñu dem ba ca yoon wa ñu daal ñu xiif daal ne bu ñu demee ba ca barab sàngam nañ yónni jënd luñ lekk ñu dem ba ca barab ba daal kenn ci ñoom mu dem jëndi lu ñu lekk bi mu jëndee dem ñaar ñi waxtaan ci seen biir ne bu ñëwee nañ ko rey ndax ñaar seddoo mooy gën a ñett di ko séddoo waa waaye it dem jënd ñam wa daal naa ci def tooke su ma demee jox leen ko ñu lekk ko dee ndax kenn jël jëfandikoo moo gën a dul ñett di ko seddu ñoom ñetti ñoom ñetti ñëpp kenn yéenewu ko morom bi mu daal di jënd ñam wa def ca tooke bi mu ñëwee comme waxoon nañu bu ñëwee rek dañ ko rey mu egg si ñu rey ko bi ñu ko rey kan moo leen di wax ne ñam ñam bi tooke yi ñu jël ñam wa lekk ko dee ñoom ñëpp a dee alal jëne xew yi yal na yàlla defal ñu dégg ak topp jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatulah